soit un taux de positivité de 5,74 pour cent. Les tests positifs sont répartis comme suit. 51 contacts suivis par nos services. huit cas issus de la transmission communautaire répartis entre Pikine 1, Parcelles Assainies 2, Grand Yoff 1, Maristes 1, Rufisque 1 Yeumbeul 1 et Touba 1. 69 patients hospitalisés ont et déclarés guéris. Six cas graves sont en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état des autres patients hospitalisés est Comme annoncé Le Sénégal a enregistré son 13e décès lié au Covid-19. Le mardi 5 mai 2020, il s'agit d'un homme âgé de 94 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action de son et présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, 1492 cas ont été déclarés positifs, dont 562 guéris, 13 décédés évacués et donc 916 sous traitement. La prise en charge extra-hospitalière a commencé et concerne toute personne testée positive au Covid-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune autre maladie chronique et présentant aucun signe de de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge extra-hospitalière par un personnel et se déroule dans une structure d'hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. asalaamaaleykum askan wi. ci bésu tey bii di alxames juróom-ñaari fan ci mois de mai 2020 jot nañu résultat virologique yi ma leen di bëgg a jottali ci junni ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom fukk ak juróom-ñeent bi ñu dellu see ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak benn moom lañuy wax contact ni leen ko doon waxee bés bu nekk mooy ñi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu te di leen topp ci bërëbu liggéeykaay yi juróom-ñett ci ñoom ñoom la ñuy wax cas communautaire yooyu nag ci bésu tey bii ñu ngi leen di fekk ci diggante Pikine am na benn Parcelles Assainies am na ñaar Grand Yoff am na benn maris am na benn Rufisque am na benn Yëmbal am na benn ñoo ñëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru Touba am na benn juróom benn fukk ak juróom-ñeent malade yi nga xamante ne saytu nañ leen àndatu nag doomu jàngoro ji wër nañu juróom benn cas li ñuy wax cas ñu ngi tëdd ci l'hôpital principal ak ci l'hôpital Fann ci li ñuy wax service réanimation ni ngeen ko waxee démb te di ko doolee nakarlu suñ senegal gi amaat na beneen nit koo xam ne génn na àddina muy def mu tollu léegi ci ñu génn àddina ci fukk ak ñett ministère de la santé mu ngi koy jaar ak mbokk ay mbokkam ak askan wi te ñaan yàlla xare ko àjjana ci bésu tey bii ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent ñeent fukk ak ñaar ci cas yi nga xamante ne positif nañu mooy ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar wër nañu fukk ak ñett wàññeeku nañu mooy gaañu nañu benn delloo nañ ko réewam ñu toll léegi ci ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital ñu leen di faj ci juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn comme ni leen ko waxee ci gaaw bi ñu génn ba léegi. commencé nañ li nga xamante ne door nañu ko mooy ñi feebar am doomu jàngoro ji te seen yaram yëgul ne ñu ngi feebar moom la ñuy wax euh, prise en charge extra hospitalière ñooñu nag foog ñu nekk ñi nga xamante ne amaguñu juróom fukki at te ci ñoom bi ñu leen seetee gisuñu si ñoom benn jàngoro boo xamante ne yàgg na mun na nekk diabète mun na nekk hypertension mun na nekk tension di wàcc mu nekk insuffisance rénale mu nekk ko am ja jàngoro ji nga xamante ne moom moo nekk ci deret yépp jàngoro daal dinañ ko seet ci ñoom mais ñoom bu ñu toogee dañ naan yëguñu doomu jàngoro ji ne nekk na si ñoom waaye bi ñu leen seetoo am nañ ko loolu nag dañ koy def tamit ci anam yu wóor du ñu nekkati hôpital waaye fi ñu leen di yóbbu day nekk foo xamante ne day mel ni daanaka hôpital personnel waa kër docteur yëpp dinañ fa nekk ñëpp dinañ fa nekk ñëpp ñoo xamante ne dañ jàpp ci faj bi te tamit fi ñu koy defee dañ koy def ba mu mel ni hôpital ni ñuy duggeeg ni ñuy génneeg ni ñuy defee lépp loo xamante ne war na ci ñu ngi ñaan képp koo xam ne bokkul ci li ñu wax nii xamal ne duñ la ko defal mais yaa ngi tëddaat ci laru hôpital yi ni ñu ko waxee woon ministère de la santé action sociale mu ngi dellu di ñaax askan wi di wax ne mbas maa ngi wal na ñëpp def ni ñu ko waxee woon ak tegtal yi lépp loo xamante ne bu ñu ko defee muy geste barrière feebar bi du leen dal mais itam même bu duggee ci dëkk bi wat ci bëri du wàllaate kenn ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam maa ngi nag euh, di leen yëgal ne waa ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants ñëw nañ tey jii ci bërëb ministère de la santé ngir jàllale ay xibaar yu am solo seen secrétaire général bi ñuy wax monsieur Mame Diouf moom moo ko nara a jàllale wasalaam